Wade defoon du doon président ni mu def opposition bi ni di leen malmené ni di malmené Sénégalais bu Ablaye Wade defé won non mom du don président c'est clair est-ce que bi Ablaye Wade di woote dialogue ka la ñu tok waxtaan lan la tontu du ñu toog ak yow da ngay dem wala ñu fekk la ci palais bi génné la il a dit kon nak mbir mi mom li nga leb la rek lan lay fay ah?

retour bi xam nga moy lan moy recours bi nga xamne mom moom la opposition bi ñu xol lan lay conseil constitutionnel en retour dañuy tégal ci kaw table bi. donc pour yow d'ici le 2 avril les sénégalais peuvent être très patients très passifs. mais xolam lo gis lu ne dafa am délai. lo gis lu ne dafa am app xam nga mom waxal na ko ci gémmiñu bopam que ne man le 2 doyal naa damay dem le 2 doy naa da ngay dem ñu xaar ba le 3 jot te ñu xaar ba le 4 jot demul là c'est c'est-à-dire problème bi moy duñu ñu nangu nag nga nek <laughs> sëñ bi di la jàppale japp ba nga ñëw ba ci biir nak bëgg ñoo tere nak dans la boue naan ñu tey la suba la gannaaw ah non non non. dernière question pour terminer amnistie bi pour yow tay lañu war saisir assemblée nationale bu ñu paré réunion conseil des ministres euh, pour ou contre. mais amnistie bi kan la koy defar bopam nakoy defal ak ay ñoñom kan la koy defal parce que mëno japp ni nga wax japp nit ñi ni kan nga koy defal je passe directement sur sur la personne Ousmane Sonko combien de mois il est dans les. Euh, parce que Ousmane Sonko n'est en rien demandeur. non Ousmane Sonko combien de mois il est en prison. depuis juillet. combien de temps d'autres sont en prison. et c'est des alliés de Ousmane Sonko. ñaata yoon lañu duggal liberté provisoire ñu rejeté leen que Ousmane Sonko ñaata wër lañ ko barricadé.

Parce que quel que soit Alpha Ousmane Sonko, il ne va pas moisir en prison. Ses alliés ne vont pas moisir en, en prison. Yag, yag, a des gens qui ont cafés, c'est barré tout. Mais vous gagnez l'eau comme S'il purge sa peine, l'eau comme Qu'on ne parlez pas d'amnistie. N'avoir amnistie pour moi, mais nous nit ñi fi rey xalé yi fi rey torturer les do les ci traîner ñi ñak tank ils sont devenus handicapés à vie ñoñu légui ñom qu'est-ce qu'ils vont faire et vous dites que vous les libérez d'une manière provisoire, liberté provisoire. Et vous retournez devant ce peuple-là pour leur dire amnistie. mais ñoom les, seen àdduna fan lay mujj amoon fi léeboon fi dem nga non je suis contre cette amnistie je suis contre je suis pas pour. Ousmane nous lay remercier malheureusement on a eu très peu de temps aujourd'hui Maintenant, on va se retrouver Inch'Allah. je sens que tu es très très remonté contre.

ku mu woowoon ci jamono jooju gouvernement bi nga fay sa téléphone xam na li ma ko wax am na ñoo xam ne si les appelés dañuy fay seen téléphone kenn bugg ko woon recevoir kenn bugg ko woon a xam ci jamono jooju mais boo demee nag ba nit ñi jàppale la toog yow ñala àndaloon sa allié yooyu nga war leen gestu xool leen am kóllëre mais yow ñooñu nga njëkk écrasé kon tey mënumaa concevoir man ñu may wax ne ma le président de la république ko bëgg dialogue ko bëgg jamm la bëgg na jamm tay ba mu jéxalé parce que xam na ni tôt ou tard il est sénégalais il va retourner sénégalais mhm. et il était sénégalais est-ce que xamé ne woon sax ni mom sax sénégalais la en un moment dem ba fàtte ce peuple tok nan torture amul ci kasso yi xalé yi ñu fi door amul torti kenn du ko fi def nangam ak nangam je je lui pose la question il est dans quel Sénégal le président Macky est dans quel Sénégal Question de Ousmane Ba nous y remercier euh, mesdames et messieurs on va se retrouver demain dernier numéro de la semaine encore une fois euh, toutes nos condoléances à notre frère Abdoulaye Mbou qui a perdu sa maman euh, toute la maison se joint donc à ma parole pour présenter ses condoléances à Abdoulaye euh, énormément de courage à toi Abdoulaye et à Jean Dossé également à notre jeune frère de la CNTV qui a perdu son papa hier soir excellente soirée à notre compagnie Rendez-vous demain 16h. تتكلم